auudu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi siyaar mbooleem ku ñuy dégg ak di ñu topp dunoo ñëwoon tey ngir jéema laabirante ci liñ tudde furudul ayni muy farata yi nga xamee ni képp ku ab jullit farata la ci moom xam ko muy góor muy jigéen ñu ciy sukkandiku nag ci njàngalem sëriñ bi ci téereem yim bind ñuy tàmbale ci tasulu subaan bu jeexee ñu teg ci al jawharu nafis te lépp ñu koy jéem a tënk ci cinq minutes kon fi ni tàmbalee li njëkk jàngale mooy lu aju ci mbirum laab di ko sëñ bi jàngalee ci téere mbii di tasulu subaan laab mooy rek ki sangu war ma dem sangu ku jàpp war ma dem jàpp loolu mooy laab man ndox lañ ko mën a defee moom laab moomu muy sangu wala jàpp ndox yi ci tënk dañ koy def ñetti xaaj ndox moo xam ne laab na te it mën naa laabal muy benn xaaj bi mooy ndox ma moom si jëm boppam laab na moom jëmmi ndox mi te mën naa laabal bu nee laab na mooy ndox la ma mën nga koo naan boo bëggoon naan man nga cee togg man nga cee sangu nii waaye mën naa laabal mooy mën naa def jaamu yàlla mooy man nga cee dindi yére yu taq sobe mën nga ce sangu janaaba mën nga cee jàpp loolu mooy xaaj bu njëkk mooy ndox mu laab te mën a laabal te mooy mépp ndox moo xam ne mucc mucc na ci soppeeku ci cafka ak ci xet ak ci couleur ci lépp loo xam ne baaxuuta am nag ndox loolu mooy xaaj njëkk mooy ndox mu laab te mën a laabal ñaari xaaj mooy ndox moo xam moom si jëmmi boppam laab na waaye munta laabal te mooy ndox moo xam ne dafa soppeeku ci cafka wala ci xet wala ci couleur te la ko soppil nekk laab waaye nag baaxuta ànd ndox man maa lu mel ni kafe moo ci sotteeku mu soppeeku wala suukar wala omo wala saabu wala or sewal wala yu mel noonu nga xam ne laab damaa daggan na nit di jëfandikoo ko waaye nag baaxuta ànd ndox lu mel noonu bu soppee ndox ma ndox ma laab na waaye mënut a laabal laab na mooy manees na ko jëfandikoo ci wàllu togg wala naan wala sangu ni sangu toiletu waaye mënut a laabal <clears throat> mooy mëneesu koo jëfandikoo ci wàllu jaamu yàlla maanaam mëneesu cee sangu set mëneesu cee jàpp mëneesu cee dindi yéeti taq ndox mu am omo mëneesu jëf sangoo sangu set mëneesu cee jàpp mëneesu cee dindi. yéere yu taq sobe waaye manis na ko sangoo nii ngir sangu sa yaram set waaw wala ndox ma am ataay wala café manis na ko naan bala neexee wala tooke ko mooy ci wàllu laab na waaye mënta laabal kon loolu mooy ñaaru xaaj bi ñetteel bi nag mooy ndox moo xam laabul mënta laabal maanaam jëm ndox bi boppam laabul mooy mënu su cee togg mënu su koo naan mooy mënu su cee sangu set mënut ta dindi yiir yu taq sobe te mooy ndox moo xam ne daa soppeeku ci caf ka wala xet wala kulóor te la ko soppi nekk sobe lu laabul lu mel ni ci misaal sàngara moo ci soppi sotteeku mu soppiku wala deret wala yu mel noo nga xamee ni sobe la kon ñetti xeet yooyu ñoo am ci ndox kon nga gis ni xaaj bi njëkk bi mooy ndox mu laab te mën a laabal bu ñaareel bi mooy ndox moo xam laab na waaye mënta laabal bu ñetteel bi nag mooy ndox moo xam ne laabul mënta laabal kon gis na xaaj bi njëkk bi rek mooy bi nga xamee ne moom manes na cee laabe te mooy ndox moo xam ne mucc na ci soppeeku ci cafka ci xeet ci couleur ci lépp loo xam baaxuuta ànd ndox ni ndox di mel noonu la mel li ndox di saf loolu lay saf li ndox di xeeñ tamit loolu lay xeeñ kenn ci ñett yooyu mooy couleur mooy caf ko muy xet amu ci benn boo xam ne da am ak changement bu ci am ci te la ko la ko loo xam ne baaxuta ànd ak ndox jërë ngeen jëf ñeem fii kon ba beneen yoon